publicly ko people like Sidia Diatta ñi ngeen tala pour que retire ah, mbir mu xaw a doy waar tuuti ah, ki nga xamante ne moom DJ Face kontaan nañ ko bu you. amuñ sa fay ki nga xamante ne moom mooy kanu laamin nuyu nañ ko Face góor nga garmi nga waaw wax dëgg yàlla Face amut morom Definitely. na laamin tamit ñu ngi laa nuyu nañ kanu laamin kanu laamin ah, kontaan ah kanu xamante ne yaa ngi ko laamin ñun wax dëgg yàlla ki nga xamante ne nii moom Adama Danso <laughs> amadou danso amadou danso amadou danso thanks for the ya ibrahima sumundu ñëwaat na eh, ibrahima yow nak moy lolu dañu bëgg da nga bëgg bara ñu tej ñu way duñ ko duñ ko def <laughs> ibrahima lu waxati tajax na ko wax no dal ha nga ñu dega mané la du ko wax do ko wax wa eh, kon kon ah, ibrahima mo ay leer ba nga wax sa yobante <laughs> no way guys ndeysaan waaw mu daal dëgg la macha allah macha allah jaaw ban naa am nañ mbégte kontaan mhm. eh, ci ànd bi nga xamante ne yaa ngi ko ànd ak Sahel Network ki nga xamante ne moom mooy président Adama Barrow nag nit ñi li ñuy wax ñi eh, naan da nga ko war a wax ñi naan waruloo ko wax mhm. eh, waaye nag man ci suma xalaat bu gàtt mooy que ni mu doon nga ko bind leetar mhm. yónnee ko ko wala oh, nga oo ko ndax ngu président nga koo oo mu uysi la nga oo ko ba mu ñëw ci su ko defee ñeneen ñi nekk am chance. gars si. waaw ndax ñu mën yow doo ma bàyyi. du leen ma bàyyi yéen. Ah. yéen di wax ni. Ah. waaw ba ngeen waxee politique lu ñuy orienté. waay is politique. Eh, su demee su ko awoon ba toog ak moom di waxtaan ak moom ay négociation la di <laughs> way politique la ci fil bi la danga may wax ma delloo la jox ma give me I give you ball la it's the playing ground danga you give me the ball I touch it I give to the partner and the opponent come to charge nii la politique football la caajante la ak su ak free kick te found bu nekk ku commit fii found sa moroom comité found fële xam nga li gën a bon mi gën a dangereux bul commit penalty waaye day commit found outside the box this is the political uh, system président Barroso oowantee si Sidi Diatta te bokkuñ parti waaye bokkul nañ alliance ba nga xam ne alliance boobu noonu moo indi tey jii mu président Barroso toog ci réew mi léegi su buggee teg candidat am te kooku tamit mu fa te xam na ne kooku am na doole foofu day oo day ñëw taxaw li kee waxoon mu tontu ci mbiri politique la. waaw ah, demul as président de dafa dem as parti leader. kon mu leer pour man ci ma xam-xam te li ma gis. Ah, demul as président yi go as leader. <laughs> Mohamed Silla kontaan nañ ci ànd bi nga xamante ne yaa ngi ko ànd ak ñun. definitely wax dëgg yàlla sant ak ngërëm ñexal na la macha allah. thank you um, uh, definitely um, ñing komi nga fale ñamin anna politiko la karola nga ñing kibaro la soto mm -hmm. aliye ñing ñing pour nay ñin nale kaccala woton kontanta baake la mol mi yalan ko min koy finteta nang anna uh, facebook woto ñing yela comment sol drop mm-hmm. uh, mm-hmm. uh, mm-hmm. bi as far as uh, uh, Gambia is actually concerned barin ah, ah, a findita bantala pour ni mole kacha fenna mhm. mi yalon ko min ko nyin ka fay word on the street a ah, min mi yalon ko min ko be dending a a the release of the junglers a mi yalon ko min ko the victim center e mhm. findita le nyin kay kandi ko min ko mo fenna ti mi yalon ko min ko nyin itol ma won nyi nyaayande woto nga mhm. finti banta nga jube mole mona fo concerned that stay connected